mbokk yi ñu ngi fii ci Thiès euh, rawatina ci quartier bi nga xam ne mooy quartier Sarène Euh, bu ñu waxee nag kàcci saaren seen xel war na dem ci international sénégalais bii di Sidi Sarr euh, Sidi Sarr xam ngeen ne dafa bokk euh, ci Lyon yi Aliou Cissé convoqué ñu war a jongante ci éliminatoire CAN 2021 yi moo tax ñu ñëw tey fi nga xam ne mooy cosaanam Thiès fi nga xam ne mooy këru famem war a xool un peu moom nan la fi nekkee woon ci ay tànkam ba muy nekk jeune joueur ba keroog yàlla di def mu nekk professionnel ki ñu nar a waxtaanal nag di woy juróom bu góor nuyu di la euh, jaajëfal ci dalal bi ñu dalal fii. maa ngi leen di sant gërëm bu ngeen ñëwee fii mooy koñu Waldaan Mbour 1 ku ni rek ni saaren fii la mooy mooy koñu Waldaan ñu leen nag jàmm li wax noonu dégg naa ko si fii la juddoo fi la màggee ba ni mu dem këram ñun ñëpp fi lañ nekkoon ak moom ba yàlla def li mu def ba mu doon professionnel doon ji at yi mu doon professionnel ay baayam ñëpp football lañ daan def muy man ak keneen ak keneen ñun ñëpp football famille football daal fii la. kon kon tey bettu leen yéen boo leen gisee seen doom atteindre niveau bu mu nekk ni nekk joueur professionnel bettu leen yéen. non ñàkk bu ñu def la woon suñu moom maam da ko fay bàyyi woon parce que li may wax tam dama ko xam parce que ku am 60 ans am na yoo xam ne xam-xam nga ko suñu moom sama papa dafa indi yoroon ay équipe tudde leen ay espérance wala tandem moo doon président bi mooy financé mooy joxe.

du Jean de Paul leen dañuy dem fenn ñu ko sa papa dàqoon football mu mer parce que tamit euh, yenn saa dama koy seetaan télé ma gis leen la mu def bu ñëwé fi vacances wala mu woo téléphone ko sa poids dafa bëri wala da nga jël volume wala li ak li il faut nga defaat li def li footballeur léegi nak loolu mooy seen problème parce que man dama toog ba midi heure bi ma jóg dem antenne ji dégraisser sama yaram am loo xam ne manqué woon naa ko il faut mu wuti ko te ñoom nag euh, loolu la antenne bu dollu rek ñoom duñ ko duñ ko am te loolu nag mooy seen jàngoro footballeur yëpp léegi parce que ñun ba ñuy football da ngay xam ne yow tey ji manqué deux jours entraînement kon boog am na lu manqué nga dem renforcer wu tey ji ci guddi gi wala suba gi suba nga dem renforcer wu ngoon nga dem entraîner tëdd récupérer euh, bu weesoo peut-être aspect entraînement yooyu ak physique bi lan moo war a tax tey mu atteindre beneen palier pourquoi pas dem ba nekk titulaire ci équipe nationale bi ci yow. non man xam naa bu liggéeyee li footballeur am am na ko parce que environnement bi ñun footballeur la ñuy wax. bon booy football entraîné récupéré boo ko boolee tuuti am bagage technique am yan yi rek am na bagage technique am na frappe mën na bal aleen tam mën na ko kon boog am loo xam da doo ko des mooy temps de récupération ak leen li mu maîtriser ko si football bi rek jeex na lu mu bëgg rek mën na ko ci am football bu weesoo euh, li ñu évoqué loolu yëpp est-ce que ba léegi yéen a nga am benn euh, lien euh, maanaam nga koy dégg souvent di ko di ko jox ay conseil parce que nag nekk ndaw peut-être teel a nekk professionnel boo peut-être amul encadrement bu xaw a dëgg rek mën nga mën nga xaw a dem dem mais demb rek démb démb pour di maa ngi woon sali bii heure maa nga sali si seen siège fi ñu nekk regroupement démb heure maa nga foon muy Loum Ndiaye muy international Moussa Wagué ak yeneen boo yoo xam maa ngi ñoom ak Habib Diallo moom ak Sidi ñoo toog nii démb di waxtaan coach jàpp sama loxo ni ma yaa ngi waxtaan ak say doom ma leen waaw ko bëgg ci bi ñoom pour ñu mottali ko seen bopp mooy bi dafa ma jox mes na xam ko ñun kon boog loolu dama ci remercier ang si ba barke demb bimu mu ñëwee entraînement ak public bi daf ma téy duggal ma ci vestiaire ni ma waxtaanal ak ñi waxtaan ma tok wo waxtaan ñom demb heure ma nga sel ba ba ay 16h30 la fa jógee ñibbi ma xalé xale togon di waxtaan ni parce que yàgg nañu avant ñu ñëw équipe A ma ñoom ñoo donné junior yi sen sen coupe du monde yépp chaque instant buñ ko ci dem bo ñëwee da nga ñëw ci man ñu tok ñu waxtaan ak Sidi mo waxtaan ak ñoom dugal si nekk waxtaan tam li mu ci mën a ma japp loolu lañu dund. laaj bu mujj bi rek moy tay yow ban regard nga am ci ci équipe nationale bi euh, en en tant que supporter en tant que ancien joueur ban regard nga am ci équipe nationale bi fum dal ni bon sélection nationale bi bon nit ñi ku nekk dañuy critiquer di wax waye depuis bu ko ANACIM yore am lo xamni dafa fruit yo xamni mi ngi genn te fruit buñ ci bu ci ñepp jappé rek mu dem man aw fra aux yeux ci nit kenn kenn. lépp liggéey la rek parce que tamit bon nekk jaar naa douane jaar naa euh, Casa Sport bu see photo be euh, sama rek moo nekk Casa Sport mooy entraîneur entraîneur Casa Sport kon boo nga xam ne mais football moom liggéeyal rek te li ANACIM def jël booy leen liggéeyloo tamit ak mag ñi leen liggéeyloo loolu idée bu baax la. parce que bu ñu ko jàppee tamit ñun ñëpp dugal seen loxo parents yëpp dugal seen loxo kon football football Sénégal mën dem ci kanam parce que même p fédération bi mu fi ñëwee di jaale si parce que am na sa mère rek ku wàññeekoon loolu. dugal naa ko ci dof parce que wax na ma ko parce que dana ma yéen saa li tax ngeen li tax ngeen am ëpp si métier football bi parce que chaque année ñun war nañoo indi benn produit bu ñëw dugg ci parce que le cas de Matar Sarr bu yàggul moom la sii dee ngi ci kaw am na ñeen ñoo xam te war nañoo ñëwaat ñu ngi fi ci kër gi wala bu génn kër gi kon boo nga xam ni liggéey boo xam ni du jaas la te football moom bu kenn naxa bu kenn nax sa morom bu ñu naxante wu rek bu ñu naxante wu rek ku ne mën ngaa def danañu ñaan yàlla li ANG sumbu diko ki yalla may ko ci ndam bu bu rafet rafet. voilà señ bi bal ñu nga faté lañu tour bi. Euh, man euh, Ibnu Sa Ibnu sar la tuddu donc euh, don formateur bi nga xam dama nek fi au niveau de du Thiès particulièrement à walidan tay ñu ngi fi quartier saren fi nga xamne fi le international bi di Sidi Sarr mën nañ né màggee yaro fi lan nga ñu mëna wax ci jour bi balaa ñuy ñëw sax ci ci ci euh, personne bi mais ci joueur bi enfance am fii lan nga ñu ci mën a wax euh, début bi ci football ak yi ni mel. waaw je crois que ni loolu je crois que ni ñun maak Sayer comme ni nga ko waxee euh, yàlla def na formation xale bi nekk na ba muy am 8 ans ba léegi ñun ak moom ñoo nekk. donc lépp loo xam ne daanaka xam-xam la boo xam ne nekk na ci moom ci wàllu football je crois que ni sama collègue bi Sayer lum ci def na ci ay jéego yu mag. xale bi nag li gars yi di wax dafa juddoo ci koñ boo xam ne koñu football la so loo ci mën a tam koñu walidaan koñu soo xoolee ay papaam yi di ko couvrir yëpp c'est des footballeurs te actuellement tey c'est des entraîneurs en commençant par Badara Sarr l'entraîneur du Casa Sport c'est papa Sidaat Sarr men c'est son papa donc y a aussi Gossar Sayer Bari ñun ñëpp daanaka ñun ñëpp on était des anciens joueurs particulièrement tam des internationaux donc xam nañu mais xale bi moom en personne xale la boo xam ne bon signe la boo xam ne dafa yàgg feeñ ci moom ñun on l'a détecté vraiment très xam ni am na ay niveau boo xam am na ay qualité yoo xam ne dama nekk na ci moom. jamono yooyu lan ngeen gisoon ci moom jamono yooyu. waaw li ñu gisoon ci moom mooy comme li ñuy gis ci yeneen joueurs yi nga xam ne c'est un peu particulier rek xale moom soo leen yoree ñu doon une centaine yenn saa am na xale yoo xam dañ ciy neex a ràññee moom nag ci ñi neex a ràññee ci la bokkoon euh, kii toog yor gi sax daanaka sam la moo ko doon jàngal alxuraan. oustaz mi mais da daan wax loolu da daan wax ne dafa am wax boo xam ne da nga ko a ci paas di boobu ba léegi koy jàpp da daan wax ne da nga ko mos a dañoo mos a toog ne maag sayr ko yàlla defaree su ko yàlla dafalee cat a ko dégg au Sénégal je crois que ne moom moo ab maître maître coranique la moom détecté loolu ci xale yi sàkkantu wala xam ne daanaka ay techniciens dafa a teeloon a ràññeeku sur le plan sax corporel bokkul woon ak xale yi nga xam ne dañoo yemoon à donc sur le plan technique et footballistique tam santé que vraiment dafa nekkoon un avance par rapport ak groupe bi nga xamni ñom la nekkalon bon voilà bi mu il a il a joué bariwul fi mu jaar nak mom bi mu joué dafa joué club civil bi walidan parce que club civil bi ci walidan nawetaan bi lañ ko gëpp créer club civil mo tax ñu bari dañ koy jaawale sax ba tay jini mu génn fi mu paré il a joué là-bas il a été le meilleur joueur en cadet euh, championnat national bi de meilleur joueur bobu sax la ci gaay top ay Dakar Sacré-Cœur affaire yu mel noonu ci lañ ci topp y avait moom ak ci am été le meilleur buteur ñu jël championnat boobu Lamine sar bi nekkoon bi nekkoon le gardien de U20 moom moo doon gardien bi moom ci suñu groupe boobu la bokkoon donc mu jóge fa ba mais bi mu nekkee tamit junior il jouait ci nawetaan yi il était performant ci nawetaan yi ak affaire mel mais li ñu wax ne dem de moom dafa gaaw ba nga xamante ni peut-être que yàggul ci crisis boobu ñuy nekk parce que bi mu demee Dakar Sacré-Cœur après bon xam nga rek gars yi moom boo amee jour bu baax moom gars yi kii ci yàlla def ñu xam ne peut-être que foofu la mooy progression boobu mu doon wax mu dem foofu ñu yóbbu ko foofu bi mu demee foofu après mu def fa un an dem euh, kii ci Mbaye Diouf ja kii la Mbour Petite Côte après fa la fa la poursuivre plutôt dem moo tax moom kii am yàggul yàggul noonu quoi donc bi muy dem sax presque mi ngi jeexal junior wala junior lay doon di jeexal di dem kon donc précocité boobu ñu doon wax ak performance jaar-jaar yooyu la am gàtt na mais c'était riche en enseignement parce que il a été toujours performant ci club bi muy dem Música